senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñuy seetaan noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen baalu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal xalifa Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la ñu nekk tey ci bisam muy Serigne Sidi waaye di beral ab ziar sëñ Mouhamadul Mamoun moom Cheikh bi nga xam ne moom la ñu nekk tey ci ab ëttam fii ci Touba Madiane euh, ni ko sëñ Arouna waxee Cheikh Abdoul Ahad fàttali ko ay jikkoom mooy fàttali ko rek jikkooy sëriñ bi ndax melokaanu sëriñ bi rek la yoroon. ci jikko yu rafet waaye jikko yu mat ci aw fit ak njàmbaar ak yaatu ak tabe waaye it bëgg Sëriñ Tuubaa lool jaay léppam jënde ko ak taalibe loolu feeñ ni ci biir ay mbindam ci ay xasaayitam yi mbind wax ne jël naa sama lépp tabal ko ci biir sëriñ bi waaye feeñ na ci ay mbindam it ci li muy wax ne yàlla def ko mu nekk liggéeykatu sëriñ bi wax ne ndàmbam muy trésoram mooy bëgg Serigne Touba moy ab yóbbalam mit euh, nekk koo xam ne it li borom xam-xam yi bind jëme ci mom doyna na sëkk melokaan ak ngeenel wax ne nekkon na ko xamne ne waameew la daan ci kep ku ma sa ñew fi mom wax ne ki sakku ku melni ni momi du ko gis wax ne ab nday joram geejuk tabla waye ab càmmooñam jaasi la ci bepp non soppe bu ñew di sakku ngeenel mu jox wax na it mooy xéewalug yàlla ci goxi àdduna bi yëpp loolu sëñ Abdoulaye Jaxate xasida googu mu ko way loolu la ci leeral waaye taxawaayam ci liggéeyal Serigne Touba tàmbalee ko ci dëkk bi di Touba nga xam ne sëñ Mahamadul Mamoun Ñang bokk na ci tagg yi mu koy tagg wax ne xamaa madinatu Touba zaadaha sharafa wa amanal ahlu wal jiraan wa nuzula xam ne dëkk bi aar gi mu ko aar dolli ko tedd nga waaye it euh, dolli ko kaaraange laabal ko ci lépp loo xam ne ay tër la ay gàkk la ba tax doo fi gis lépp loo xam ne lu ñuy tere la ñu di ko génne ci biti loolu nag taxawaayu si Abdul laat la waaye it mu wax ko ne walil xadimi banaa maktabatan tabaxal na ko xasran ab pale waaye maktabatan ak daaray kaamil jooju muy bibliothèque bi nga xam ne defena naa ku xool bi borom mi xam-xam yu bari ñi ngi bayiko fu ne ñew diko ko wisit loolu di taxawayam yok jumaa ji am yitte lool nak ci bëgg sëriñ bi nga xamne ne na su ko xamne ne sax dafa yegg ci diko tag ba ne ko day melni ni tuba mo del ci waat rek soppi turum tuddu Abdul Ahad fa ka annama bambal khadim haqiqatan aada saqsan ismuhu Abdul Ahad yar nit ñi ba ñepp xam ko ci liggey xam ko ci njambar xam ko ci taxaway rafet xam ñeme njaboot responsabilité yi mu war yi mu war a jël yëpp mu jël ko defe naa loolu ku xool shahada di am témoignage yi nga xam ne njabootu Serigne Touba gi def nañ ko jëmee ko ci moom lépp dañuy wane ni mu daan nangoo jël engagement ci lépp lu ko war ci du ci dellu ginnaaw ci taxawaay bu rafet boo xam ne war na ko ci. kon buñ koy fàttaliku modèle la boo xam ne war nañ koo exposé ci kanam adduna waa jamono gën a jàng kan mooy Cheikh Abdoul Ahad dana nu gën a may. crise yi ñu nekk muy crise yu jikko yu yàqu yi ñu mën caa amee jikko yu mat jikko yu rafet ndax koo xam ne boo ko tuddee na aw fit boo ko tuddee na njàmbaar boo ko tuddee na dëggu waaye ay injazaatam ay réalisation yoo xam ne def na ko it lépp day wone rek euh, taxawaayam li sëñ Abdoulaye Jaxate di wax ne euh, mooy ki nga xam ne afda damasatuhu li ali walidu maanuma la nga xam ne sacrifice na léppam def ko ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi euh, ba tey jii defe naa dindina ak complexe ci mourid nga xamne mouridisme gi ni ñi doxé fini té lool loolu comportement yoy yëpp taxaway yëpp Cheikh Abdou Lahad fexe ba nit ki xam delu ci wat xam deug deug lan moy taxawayam lool nak defe na amuñu benen model amuñu benen référence amuñu benn way bu gëna mat Cheikh Abdou Lahad ci jikko yu mat yëpp ci xam-xam ci alquran wété ci dundal ak ci taxaway bu mat ba ndonol li lim doon non mu ñew ci loxom bi mu ñewé taxaway bu rafet bi mu ci taxawee yiir ñëpp jaboote ñëpp taxawu ñëpp loolu nag mooy fàttaliku bi ci loolu lay jëriñ euh, fii ñu nekk di kër Cheikh Mahamadul si sëñ Mahamadul Mamoun yàlla daf na boole wëllëre bu yàgg yaakaar naa doom ji ma ko tuddee am na juróom-ñaari kon lee mu xaw a yàgg tuuti mën na ko ëpp sax waaye loolu jikkoom it nag moo ko waral ndax nit ñi sëñ Tuubaa rek lañ mënta muñ sëñ Tuubaa rek lañ mënta ñàkk la maam Cerno borom Daaru doon wax ne sëñ Tuubaa de doomi soxna yi ak ceddo yi jikko ju rafet rek la leen yilife ab ceddo moom jikko ju rafet nga ko mën a yilife tan ab ceddo la bu dee doomi soxna it xam nga day jàng ki moom it jikko lañ ko mën a yilife mooy ni mu mel wax naa ko léegi gox bi yëpp gis nga ni mu mel foo ne la nit ñi bàyyi ko bi mu ñëwee dëkk si fii ñëpp dañ ko jàppe muy seen sëñ Tuubaa kenn a jàppe ko muy sab sëriñ mooy taxaw tudd doom yi mooy taxaw jullee néew yi mooy taxaw takk sëy yi diggante yi lu am jafe-jafe mooy taxaw lijjanti loo waroon a jëggaani rek yaa ngi koy am ci Cheikh Mamadou Mamoun mu nekk nag kilifa goo xam ne gu woyof la waaye kilifa la goo xam ne it gu gu gu gu baax la goo xam ne it ñëpp bàyyi nañ xel euh, aw doxinam ñëpp bàyyi nañ xel it ab taxawaayam ñëpp bàyyi nañ xel melokaanam loolu nag tax na ba nit ñi fenn fu nañu bàyyi koo ñëw fi moom te li ci gën a marqué ñu bari moo mooy sëñ Mamadou Mamoun jamono lu soppiku la nag lu jaxasoo la waaye kenn du ko dégg ci leen loo ko warul dégg kenn du ko gis ci dara loo ko warul gis kilifa la gu doy la goo xam ne xeebul kenn waaye kenn dégg ko ci lu leerul loo xam ne dañ naan jamono nangam loolu ku xool adduna bi nu muy doxee xam ne doon nit ku set ci dara jafe na nga xam ne faw yeneen yi xew waaye kenn dégg ko ci ay lobby kenn dégg ko ci ay dil kenn dégg ko ci ay benn pexe lu moy rek ne ca la ko war yor njabootam doy loo am ba tax ñëpp bëgg kum gisit gan gi ñëw tey gi ñëw suba lépp a yam ku ñëw ci moom da ngay fekk mu nekk ubbeeku ku belleeku moo waral taxawaay bi nit ñëpp ñëw taxaw fi kon nag noo ngi sant di ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko fi wéral ko ku fi teewit yàlla faj sa ajo ci barke xaadim rasul lu fi waay di wut yàlla na ko yàlla defal. senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi.